الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ got de dóor naw ngot ca noon ya ñu goor mu taaj nu ceeb teg ca ay ngot got nan ca lekk ba suur